del déglu del xool Feeling Dakar site bi lay jox information yu. dañoo ñaan ñu jot ci suuf te amal na seen biir. donc ci amal xale ba ñëpp mu nekkoon nag. nee na mu ngi del si waat di jaale Abdou Aziz mii toog ci wetam mu ne nga xam ne moom ak turandoram tey rek moo leen tekkal moo leen tàggal musuñoo tàggoo guddi ak bëccëg ñoo daan bokk benn lal ca Tiwaawan mu ne moom nag na gën a jàppalante ci njaboot bi moo rakam bàyyi yaay mbokk yi nañu bal nañu baal ñu bokkal lislaam il faut ñu ñaari chaise wuy ma na ñaalu ñaari chaise ñu génn na ñaari chaise na ñaari chaise soxnaam Cheikh ñëwal ko. loolu xool ñu ngi lay fis fis eh, fis avancé tuuti avancé rek waaw avancé

sëñ bi maa ngi lay ziar ginnaaw bi ma la jaalee rek li ñu bokk. waaw ñu ngi lay fay. Mm-hmm. Ah, di la ni sigil sa wàll. Aline nit ku baax la yàlla dogal na ñun suñu goro la ndax sama soxna yaayam ak Aline ñoo bokk ndey ak baay sama soxna daanaka Aline moo ko yar. yàlla dogal àlli ñàkk nit koo xam ne ku cher ci ñun mareem nit ku baax ñàkk nañ ko ah, mareem dañ daan dem këram lu bari heure bu ma musaa dugg Dakar man damay dem këram li ma gën a neex ci mareem heure boo li ma leen wax sànq rek heure boo duggee këram da koy fekk bu yor kaamiram te jigéen lu mën a xew bu amee diine rek am na sens ca vraiment Marème nit ku am diine la woon nit ku jàppale woon borom këram la muy Aline Mbaye Nder Aline day gor soo xamante ni képp ku nekk ak moom boo ko comprendrewul xamoo du ngeen mën a def mais Marème moom xamoon na nan la war a nekk ak Aline Mbaye kon vraiment Marème daal dañuy ñaan yàlla yàlla na ko yërmande yàlla teeru yàlla na réccu li mu doon def ci àdduna yàlla na àllaaxiraam dàq al aldinaam ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Marème qualité moom bari na parce que jigéen li ma la wax bu diine bu amee diine rek déjà loolu qualité la beneen bi ci des yaru na teey na demul dikkul jigéen bu fekkente ni tànkam gàtt na bu jëkkëram di dem bàyyi ko ca kër ga bu ñëwee fekk ko ca kër ga wax dëgg yàlla jigéen ju mel noonu genn gënu ko te Marème yooyu mi ngi woon ci moom kon Marème daal Alioune Mbaye yàlla na ko yàlla may xolu muñ di ñaan yàlla njaboot gi mu bàyyi yàlla ci yàlla teg loxo bu baax a baax a baax ca barke bi woon ci seen yaay yàlla na yàlla sotti barke boobu ci seen kaw ba lépp loo xamante nii daal lu leen seen waajur doon taxaw daal yàlla na yàlla jàppale leen wuutu leen ci seen yaay ndax yàlla képp ku mu wuutu rek doy na sëkk. waaw ñun suñu diggante Marème sama goro la woon ku ne xamante ni Marème activité am bu weesu woon liggéeyam ñëw toog këram yàlla dogal tamit lu mu sa xew Tiwaawan man Tiwaawan laa jógee fa ndax démb bi ma sama soxna woowee rek wax ma ko ci ay deux heures moins. ma daal di bàyyi li ma doon def lépp dem sama kër waaj ànd ak sama soxna ñëw ma nii dama tëj sama palaas ca am na nu mu doon demee bu fekkonte ni li jiwuñu ko démb ah moom mën nañ koo dégg rek mais nag du ñu yàqal suñu ak yooyu waaye nag dama daal di tëj sama palaas wàcce samay emprunté ni leen atelier bi bu mu tijjiku ndax sama goro dafa wàññeeku muy jabaru Aline Mbaye Nder doonoon mareem di jigéen ju baax maa ngi cay dem tëjal leen ma sama atelier ba ma ñëw doog koo ubbiwaat ndax mareem ni mu toll ci man loolu moom moo tax ma doxale noonu waaw nit ku baax la daal di ñaanal Aliou Mbaye Nder na ko yàlla may xolu muñ ah di jaal mareem ñu ngi koy jaal ay doomam di ko jaal sama soxna di ko jaal yaayam bay sekk di ko jaal mbokk yépp di ko jaal yéen ñi nga xamante ne ay niti média ngeen di leen ñaanal yàlla yàlla na yàlla yokku leen sàmm leen lépp loo xamante ni dem ngeen jël ko daal yàlla na neex doomu aadama yi àdduna bépp di leen suivre ngeen bokk ci rajo yi nga xamante ni rajo yi gën a mag ci àdduna bi yàlla na leen ci yàlla boole ci barke Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam jërë ngeen jëf seen taxawaay rafet na voilà internet yi rek comme niñ leen ko waxee ñu toog ak jarbaatu Alioune Mbaye Nder yaay booy maa ngi lay ziar ginnaaw bi ma la jaalee. yàlla yàlla yàlla def jàmm defal ko ñëpp Marème li ma leen ci mën a wax daal mooy ñu ngi seeg suñu njaay ku baax la ndaxte moom bu ñu deful woon dara dara sax te seeg suñu nijaay rek loolu honneur la rawatina ci nag mu baax ku la gisee dina kaf dina waxtaan ak yow bu amee alalam may la jàmm la daal am na jàmm daal amul benn problème amul aw ay. ma ne moom ni ngi man nag maa dul ñëw man maa dul ñëw ndax njaboot naa damay toog demuma fenn waaye yëg naa daal ci sama yaram ne moom bu baax mi ngi sëy ak ndeer di ko ñu koy jàppale waaw ay doomam nag bëgg nañ ñuy daw ci sama kaw di wax ba ci suba bi ma ñëwee yàlla baax na daal yàlla daal baax na. wala moom ñaareel la woon. ñaareel la woon Ami mooy aawa moom nekk fi waaye moom ñaareel la woon. lan ngay wax sa góor sa càmm. sama nijaay kooku bu may wax ci moom fii ba suba du ma noppi foo xalaat lu baax. nga di ko defal sa mbokk defal nañu amul lu mu ñu defalul ci àdduna defal nañu bay defar suñuy kër ñun barke salaatu faatiha duma fen mag laa di yëkkate ay xaalisam di may di ñu lu ne daal defal nañu ko baax loolu bëgguñu nag bu la gisee tey ji dalay bëgg a forlee lu mu yor ci loxoom ñun ñoo ko ca bàyyi ku mu ci yëg sa soxla da koy faj man damay tëdd sama kër ni kar sama téléphone mu wuyu ma man ko ah yónnee ma dara damay jënd ordonnance yónnee ma xaalis ci saasi su ma amee problème wax ko da koy faj billaay wallaay al azim man na suma kër yi sax dafay dugg di xool karoolay def lu ne kon kooko bonut lu ne la defal famille am nag gis ma lu mu ci defalu nit man dem na ba jëndal ma ay meuble karole sama kër kon xam nga ni ndeer mii dañ koy ñaanal gudd fan ak wér yàlla yokk wërsëgam nag ci barke Seydina Muhammad waaw waaw ku baax la waaw ku baax la nag baax na lool bëgg na famiyam toppatoo nañu kenn mën waat ni ndeer mi defalu ko dara ñun ñépp nag billaay wallaay la azim wallaay xanaa ñaanal ko rek yàlla xare ko àjjana ca àjjanay firdawsiya yàlla na ko fa yàlla sama borom bi yóbbu ki nga séqalul dara jote woo moom dara mu dee nga di ko ñaanal estamak nag far ki nga bokkal ndax mareem ñun ñooy mbokkam ndax dara tam dafa jaxasoo gis nañu dara te ni jaay ñun ñi ñoo di mbokkam kon dañu koy ñaanal man ci suba rek fi naa ko bi may jullee fajar fajar ba pare fi daawul naa ko barke salaatu fatiha billahi wallahi al azim man taalibe cheikh nan ñaan nan ñaan rek yàlla baax na yàlla mën na ko caa jotaleel te loolu lañu bëgg te lool lañ koy ñaanal waaw loolu rek laa am lu ma ciy wax merci beaucoup waaw ah, maa lay delloo ziar waaw ah, xanaa mu nekk nag jigéen ju baax. jigéen ju muñal boroom këram ndeer ak sama yaay bokk ndey baay waaye ñun waat nañ ko ci yàlla ni heure bu borom këram masaana dem tournée tukki sax mois yooyu mu fay am yëpp da koy woor di wàcce kaam jigéen ju sell la dañ koy ñaanal fi mu jóge fa mu jëm gënal ko fi mu jóge tey ñaan yàlla njaboot gi mu fi bàyyi yàlla na ci suñu borom teg loxo ci barki Seydina Mohamed nii mu muñale borom këram sàng ko sutura ba xëy boroom këram denc ko yàlla na feeñ njaboot ci barke njool màkk moo njëkk a takkal sama maam jaare oor takkal ko lam sama umpaañ yëpp baax macha allah mais daal Marème am na ngërëmu borom këram yàlla na ko yàlla teeru ak Seydina Mouhamed ci barke njool màkk barke Serigne Baba xanaa mu baax rek macha allah. yére bu rafet mu jël jox ay jarbaatu jëkkëram comme ni ko suñu yeneen umpaañ yi di defee macha allah yàqalul dara ci suñu kër nijaay wax dëgg yàlla lu xew nag Tiwaawan mu teew teew teewaay bu rafet macha allah dañ leen di ñaanal rek ñoom ñi fi des yàlla na leen yàlla bàyyee sunu sunu nijaay te moom mi demit yàlla na ko yàlla tàbbal àjjana ya gën a kawe njaboot gi mu fi bàyyi yàlla na ci sunu borom teg barki barki Seydina Muhammad jërë ngeen jëf alors sëñ bi maa ngi lay ziar ginnaaw bi ma la jaalee rek lu ñu bokk. waaw man tamit maa lay fay bu baax Moustapha Mbaye laa tudd Aline sama nijaay la moom ak sama yaay ak sama yaay ñu bokk ndey sama yaay di caat bu bu jigéen moom muy caat bu góor. xam nga bu baax ki nga xamante ni moom moo di Soxna Marème. waaw Soxna Marème moom xam naa ko nii rek ndax man bariwuma tànk këram waaye mbaaxam sama ñoom yaay moo tax ma xam ma xam sooxu mbaaxam ci moom. mu baax lool fonk sam fonk na ay mago àll mbay ndeer moo war a tey baaxam siiw noonu mu nekk na sono soo xam ne vraiment nit ku baax la woon man aw ma jot du ma seeti kenn waaye saa saa su ne sama yaay bu ñëwee ci moom ci ndeer day naan vraiment mariam daal gàcce ngaalaama waaw mu wóor ne la kooku jigéen ju jigéen ju baax la ndax booy def lu baax fan koy waxee doo ko fekkee bàyyi na yan na ko yàlla yërëm bu baax a baax a baax a baax xare ko àjjana na waaw bu loolu weesoo damay damay gërëm magu mareem yi ndax ñoom ñoo jàppale Aliou Mbaye Nder ñoo fonk Aliou Mbaye Nder ñoo bëgg Aliou Mbaye Nder Nder lu mu mën rek ñoom la kon lii naqar bi naqaru ñépp la senegal gépp la waa déggoon naa ko waaw waaw waaw déggoon naa taw tam na waaw yàgg naa tëdd ci lal hôpital am na am yenn fi feebar yoo xam ne kenn du ko siiwal waaye ndeer moom vraiment def na lu ko war daal waaw jëkkëram moom sama nijaay taxaw na nu fu góor di taxawee rek ci jabaram rek sama nijaay taxaw na ko noonu yàllaa ñëw na yàlla bu soxlaa ñëppay ñàkk waaye ndeer daawul nelaw guddi daawul nelaw bëccëg dem na xa bu joué bu mu joué xa bu demee xa dafay dafay absenté ndax bëgg moo foor moo waral lool moo waral lool na waaw ñu bëri wax nañu euh, ñoom ñaar seen diggante dafa am complicité bu mag bu ci nekk. waaw waaw jabar ak jëkkër dafa war am complice ndax ñaar yàlla bu leen boole bu xasee ba boole rek ba njaboot am foofu rek foofu nëbbatoo ko làqatoo ko dara dara war fa am moo waral ñoom ñaar ñu wax loolu waaye Marème de vraiment mooy mooy mooy waayu àll mbay ndeer na vraiment waaw. waaw njaboot gi moom taawam. sama maam sama maam lañ ko tuddee ñun ñëpp xale yi ñun ñëpp maam lañ lañ koy wooyee waaye yan na ci yàlla teg loxo ci njabootam Aliou Mbaye Nder gi yàlla may leen may leen fënn gudd may leen wër ak sutura bu bëree bëri ba ñoom ñu dimbali seen baay Aliou Mbaye Nder waaw vraiment Nder moom daal gàcce ma daal waaw sunu nijaay la waaye ñun ñun de ay jarbaatam gërëm nañ ko sant nañ ko ndax sama ñoom yaay. nu dara moom dafa dafa fonk ay ay magam papaam dafa teel a gaañu yaayam dafa gaañu waaye ay magam yii nii suma ñoom yaay ñii ñooy ndeyam ñooy baayam waaye nag tamit du ko rëccu na ndax boo fonkee say mag daa mel ni mooy mooy ndey rek merci beaucoup jërëjëf ko yéen tamit kontaan naa ci yéen yéen tamit yéen ngi liggéey liggéey bu set liggéey boo xam ne senegal àdduna fépp waaw yéen yéen gàcce ngalaama télé bi yan na gën a yokk ca kaw ci bàkk sëñ Babacar Sy la waaw man daal vraiment ah ñun de kontaan nañ ci yéen meer na mënu mënul wax tey na waaye nag ay jarbaatam ak i mbokkam ak i dëkkandoom ñooy wax waaw ñu ngi koy jàll ñépp na ku ñëw ak ak ku ñëwul ñëpp xol yi yëpp tooy na fi ne nii vraiment kontaan naa jërëjëf ci bàkk sëñ Babacar Sy yan na jàmm yàgg del déglu del xool